alors ñu jël ci entrée bi nga pare li nga xamante ni mooy lancement soirée bi lancement sa anniversaire ki ci yëngu leen ba nga am bi nga gisee Seynabou bu démb déjà waaw dama kontaan am sama bakk sëñ si démb si guddi laa ko programmé laa woo El Hadj Ndiaye El Hadj Ndiaye moom sama papa la dama aussi ñëw ma àll la damaa xam ne sama saal xëj ñu fa de euh, fu ma nga defee sama kër am côté boo xam ne sama kër am côté boo xam ne nanga na tëj am côté boo xam ma nanga kaa ñëw yëngu leen pour def ambiance damaa na mu yii Mbàkke Alaaji Fallu Mbàkke gisoo ma tey sa laa rek sama ko topp ma jógee fi après cent cinquante laay dem ñoom Viviane nga fa ñoom Kola Faye sama ñu ñu ma xaar cent nga xamante ni fa nga tëggee ñoom Viviane waaw ñoom man maa ngi ne ñu fekk ma cent cinquante gën a safee décembre ñu ñëw wax dëgg yàlla woon nañ ma waxtaan nañ man su comprendre bu na sonn damay wàcc décembre damay wàcc du ma wax boîte bi nag du ma wax mire bi du boîte sax du ma wax garantie du ma wax Sorano du ma si Cissé sax mariage boo xam ne danga naa non non use kay ta ñaata nga dépensé ci lancement non non dafa am kay euh, tëgg ma ko ay promoteur na ko tëgg. bii nii ah, bii dafa ma bii dafa fay dara. non fii laa wax ñaata nga dépensé fii dafa fay ma dara. lekk yeeg maa ko fay lekk yi damaa xëy jox ngaan laaj sama benn jigéen sama jigéen bu baax ngaan laaj ñu bokk koñ tëral tëral mu ñëw toggal ma ma jox ko benn som mu def ba mbaax mm. ji na ma kaa sponsor Jamil Noura waaw Jamil Noura moo jaar foofu. d'accord waaw ñoom Bijou Ngoné. Ousseyn yow lan mooy sa yoon ci coowu Abou Thioubalo ak Bijou Ngoné lan moo sa man moom seetaan na la sama yoon nekk si. waaw ndax dafa xaw a wax tuuti si Ousseyn Kayta Abou Thioubalo damaa wax damaa xaw a baax tuuti. Hmm. na ma Ousseyn Kayta Bijou Ngoné ànd ay dof ay angam di wax. dëgg la ñu ñoo jël benn moo wax si dof ma def benn erreur wax si a jëkkër ji ndéggéey woo ma taj ma téesante nda ndéggéey def ma ko dara sama yaay la. c'est am na ñu xam na yenn saa bu ñu bind duñ bind lépp man damaa ne yéen daf station gën mi def soxna Xadi Saa moo ko magoon mage na koon 15 ans daana mag bu sëy xale lu la wax a baax na ndégey wax loolu lu rafet laa wax ndégey jël wax ji dama Ouzin Keita wax ma wax ma benn wax bu daw yaram dama ne Ouzin man Ouzin xeex naa ne xul naa xam dëgg la xula naa man ku ma laal baax na la kenn ma laal dëgg la yenn saa yi mu dañ ak foog ay ay yam nga xam nee naa ko nag si àdduna foog mu dindi foog mu wax benn mot bu sam dañ moo tax ma wax loolu ñëwaat si Abou Thioubalo Abou Thioubalo damaa xaw a xas dafa xas bis ngoon xas ma bu xool bis ngoon samay nekk si li ma xas moo tax ma tontu ko. nan la la xasee. nee nañ daf yu mu ànd a wax sëy yu mu sëy yooyu loolu moo bis ngoon sama sama diggante maa moom maa parle lu wax moo métti. lan la wax sa diggante ak Pawlish jël ay dof la gën a bëgg ñoo xam ne toj ñu fenn man rek si seen plateau loolu moom it dafa lu ma def. waaw wax na sama tur kay dafa def live wax na sama tur du ma fenn nag mm. def na def live sama tur moo dégg moo tax moo tax ma écarté. E yow lan nga ko tontu. tontu naa ko rëy. loo moom delluwaat nga koy wax dafa ñaaw. lan moo tax. laa def. Miss Ndongo yoonam nekk si ba ma tudd yaayam jégalu naa foofu. Mm. waa du waxoo sa du waxee ko ab tubaab la daan. mais cas e bi fan la toll fu mu toll nii parce que dégg nañ indi na la plainte. non non euh, am ku ma woo damaa am ma yóbbu plainte ma ma ma lay xaar plainte ndax moom la bu ñu demee Paris. bu demee Paris. ma ne plainte la bu demee Paris. waaw nee naan soo bis àcc si nañ yàkkante ñaar ñaar buñ paree àndaat maa problème xam ñuy def sax ñu xeex mais ku xeew yi boo ko tuddee plainte bi day gën a dëgër non non waaw ndax dafa xeew yi dëgg yàlla ñu waxtaane ko naan ah. abu ci ba tuddee yàlla suñu borom hmm. dafa sangoo garab garab bu mu bokkul ba dafa fay na de mais may ko ci bayra la ma bayra mos laa laaya tey ma xam benn secret hmm. xam nga laay sangoo xasum xasum xay teg si eh, lodier teg si kii soxoruma ak kii nu tudd bi xorom problème laay baxal ba mbax sangoo ko sot si xorom bàkki laay laxa mu cat sa jàngat ci loolu est-ce say tasim tay bu jàll la mm. xam bis mooy def loolu mm. sëyum sëy yëpp anniversaire bu jàll ka jàppee mais lim ko waxal ne ay waxam moo moo dëggal lim ko wax dala koy wax mm. waaw tas bi moom anniversaire la ko jàppee. mais est-ce que jàpp nga ni respect la bi Abdou Sow ma wax moo tax ma xama xaas ko waaw maa ngi gërëm ñëpp. yaa ngi bisu xanaa yéen a bokk foom rab parce que yow nee nga raba tax doo takk jabar moom raba tax muy tas rek. bisu nga rab moo koy yow yaa ne raba tax muy tas. ah bisu a tax muy tas tas si muy hmm? Ah? Hmm? Hmm? rab eh, rabam rabam mbaam xuux la. Mm, man sama rab tubaab la. Mm, lan la ñu war lu ga lu rawoon si ses. Mbàkke hmm? Alaaji Fall Mbàkke parent day dekk fas day dekk waaw lu dëkk bi ne yëngu de. Hmm. décembre. waaw ah. anniversaire usine que ñëpp waaj. Hmm. dëkk bi ne yëngu de. kan moo ah, ko wax nag surprise la. ki ma tëgg. mu fii taxaw du ma wax moom xam na man xam naa dèjà mu dëkk bi na yëngu waaj leen samay ma leen taxaw nan sama kii taxaw nan mm. di kontaan si ñëpp Sénégal yàlla fi mu yàgg di wax benn benn wax laa bëgg a wax oh. baa yëgoon lu xew baa yëgoon kaa bi te kaa baa dëkk baa ngi toj président bu bees bu bu waaj a kii man mii taxaw damay déposé candidat présidentiel muy man Ouzin Keïta yow mi waaw sa parti nu mu tudd. sam parti jël ko ma koy wax ci président. eh. Sonko doo bandi. Macky doo bandi. eh Amadou Sall doo bandi man la. eh dëkk bi de yëngu ne. eh maa ngi nekk président par force. eh dëkk bi de yëngu ne. eh man la